wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa asxaabihi wa asna xadimihi dawi ridwani waltamkin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alxakim rabbi ishrax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, tey jii mooy talaata di juróom-ñetti fan ci weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom tolloog fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars ci atum ñaar fukk ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñu dellusiwaat fii ci béréb bu tedd bi ci jataay xam-xam yi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma baaxoo nañ di ko amal ci biir weeru koor wi tey ji di juróom tey jii di juróom jataay bi ñu nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di dellu di yeesal ndokkeel gi ci ñëpp di yàlla nangul ñu koor gi ak taxawaay yi ak jëfe yi ñu ci def yëpp te fulal ñu ko tey nag ñu euh, daayira bi daayira muqaddamatul xidma jiital sëñ Afiya ak àllëña saqaafiya bi nga xam ne mooy toppatoo wàllu xam-xam xam-xam yi xam-xam bi muy wàllu jataay yi xam-xam yi tànn bind ci biir bind yi nga xam ne fas yéene nañ leen koo baaxee ci biir weeru koor wi mu ànd ak jataay yi ci des nga xam ne yeneen ci yeneen yi ay tomb lay doon yu ñuy ay thèmes yu ñuy jël di ko waxtaane mu soxlaal ñépp wala ëpp yenn yi di ay ubbee ay laaj ak tontu te gannaaw jataayu démb bi foofu la jëmoon bu tay bi nag jëm ci bind ab dars boo xam ne ci wàllu fiq la jëm bu am solo euh, muy wàññi ci julli ak boole ñaari julli al qasru wal jamaa fi am na solo tom bu am am solo la ndax euh, ci wàllu ab bind la maanaam ab leçon la boo xam ne ñi nga xam ne jotoon nañ koo xam te xëy na soxlawaat ñu nafaraat ko mën nañ koo mën nañ koo nafaraat ci jataay bii insha allahu taala ñi nga xam ne it xëy na seen xam-xam jotu ci woon àgg walla desoon na ci lu bari incha allahu da buñ digloo waxtaan wi danañ ci mën a dolleeku danañ ci mën a xamee kon waaye solo si itam mi ngi feeñe ci ne tomb bi dafa dugg ci biir li ñuy tuddee fiqhul ibaadaat fiq maanaam xam-xam bi nga xam ne li muy jàngale ci wàllu fiq mooy wàllu jaamu yàlla ci diggante jaam bi ak boroomam waaye rawatina ponk bi gën a màgg mu laal kon mu laal ponk bi gën a màgg ci biir ibaadaat yooyu nga xam ne mooy rësul ibaadaat mooy bopp jaamu yàlla yépp te mooy julli rawatina nag jullit ñenn ci ñi nga xam ne xëy na ngànt man leen a dab léeg-léeg ak ngànt lu man a doon duma ci sori incha allahu dana ñëw ci waxtaan wi léegi danañ ci ñëw bu ko defee mm, ba tey solo sa it solo si tomb bi itam mën naa feeñe ci ne ginnaaw ak jaamu yàlla la ci lii ci ak jaamu yàlla la jëm rawatina jaamu yàlla gi gën a màgg muy julli te mukallaf mi dañ koo digal lépp lu muy def ci wàllu jaamu yàlla bala koo jëf mu jéem a xam la ca diineem wax la ca sharia ati loolu dëppoo nag li Cheikhul Xadim wax ne man sëñ Tuubaa maa wax ne yàlla araamal na ci mukallaf mu mën a doon muy jëf jëfi sharia wala jëf ju mën a doon rek rawatina jëfi at jëfi topp te tegu ko ci xam-xam bu leer boo xam ne moo koy xamal atteb atteb sharia ca loola daal ci teg na nag koo xam ne danga umpale say farata te mën koo jàng wala nga mën koo laaj wala nga mën a diglu waxtaan yu mel nii teewlu ko man koo jariñoo te defoo ko tooñ nga sa bopp te ëllëgit da nga alak da nga alak sa bopp kenn alagu la kenn tooñu la yaa tooñ sa bopp yaa alak sa bopp qultu waqad xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila filan bi geyri ilmi xukmi sharci fiihi fada nassu dalilun qatci daal wax ne man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abaada wa dalam loolu moo tax kon teewlu waxtaan wi incha allahu dana am njariñ lool ci euh, képp koo xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy yaa teewlu moo xam nga teew ci jataay bi wala nga di ko teewlu ci biti ci jumtukaayu xarala yi bu ko defee nag waxtaan woowu loolu mooy tomb bi eh, am na ay tomb yoo xam ne aju na ci bokk na ci comme dañu wax wàññi ci julli incha allahu suñu bokk mu baax mi ñuy bëgg xam ne léegi ci kanam dana waxtaane julli yi nga xam ne moom la sharia maye ñu di ko wàññi ak atte wàññi julli ci boppam mooy lan atte bi xam ngi am na ci solo ak sarti wàññi ci julli ak it kii wàññi ci julli kañ lay dem ba toll foo xam ne dañ ko naa léegi nag sañatoo wàññi itam ci tomb yi la bokk bu ci jógee it wax ci boole boo comme al qasr wal jamaa lañ wax waxtaanee ci wàññi wax dana waxtaan ci boole ñaari julli yooyu itam fa muy gën a tarkiis mooy sabab yi nga xam ne mooy daganal bu dajee ñu mën a boole ñaari ñaari julli ak yeneen détails yi ci aju yëpp dana ci ñëw ki ñu koy waxtaanal nag du ko ñuy présenté fii ndax moom euh, ku jataay bi miin la ku dëkk bi miin la ci xam-xamam bu rafet ci mën a jàngaleem waaye ci pédagogie mi itam muy sëriñ muy sëriñ Abdou Lahad Sané docteur Abdou Lahad Sané Sané di kenn ci borom xam-xam yi dëkk bi xay na euh, tënk tuuti rek ci ay jaajaaram lu gàtt ginnaaw am njàngum alxuraanam ci Rufisque Tëngéej foofa it fa la jànge lu bari ci ay xam-xami diine ci wàllu njàngum majalis ginnaaw bi la dugg ci école yi ci lu ci diir bu gàtt mu am ñaari shahada yi te mooy li ñu tudde brevet ak li ñuy tudde baccalauréat mi i'dadi yi bi ak sanawiya bi yàlla defal ko tawfiq mu am bursu boo xam ne mi ngi ko amee ci jaamiat Muhammad ibnu Saoud waaye ci bànqaas bi nga xam ne moo féete woon Mauritanie moo féete Mauritanie fa la amee bourse boobu daal di dem nag euh, ci arabi Saoudite dugg ci jaamia al islaamiya al jaamia al islaamiya bil madina al munawara université islamique bi nekk Madina jàng fa ba ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatul xadis muy faculté bi jàngale wàllu xadis soog faa jógee dellu siwaat ci réew mi nag dugg ci beneen institut boo xam ne moom la ñu wax maadu daawal jaamia yi moom itam nekk fee ca Liban fa la nag àggale njàng euh, maanaam gëstoom ak am njàngam mu kawe ba làq ñaari lijaase yu mag a mag ci wàllu xam-xam te mooy magistère ak doctorat kon boroom xam-xam la ci fànn yu bare bari waaye rawatina nag fànn gi nga xam ne moom la ko jox bi mu ci jógee it jàngale na ci ay béréb jàngalewukaay yu wuute al kulliyal afriqiya bi Dakar benn faculté africaine bu nekk Dakar jaar na fa jàngale na fa ñetti at jàngale na itam ci université UCAB mu université eh, maanaam Cheikh Bamba bi nekk tuuba waxtu wii may wax ak yéen oustaz la ci ulumul hadis waaye mooy it en même temps itam euh, ki jiite département bi jàngale wàllu lislaam ci mujamma wala ci jaamiat al Cheikh Ahmad al Khadim ci complexe Cheikh Ahmadoul bi nga xam ne Cheikh Mountakha yàlla fi yàgg loolu te moo ko moo moo ci àggaleel sëriñ tubaa ay ay naalam ak i mébétam euh, moom mii di kenn ci ñiy jàppale te gën ci ràññiku lool bokk ci bokk ci ñi ci gën a ràññiku ci ñiy jàppale Serigne bi ci wàllu xam-xam jege Serigne bi loolu itam waaye amit fukk sëñ bi te kon loolu ci tënk rek mooy xamal leen euh, ki nga xam ne moo ñu war a def lu waxtaan wi kon euh, incha allah docteur ñoo ngi lay bàyyi jox la kàddu gi. ñaana la tawfiq nga dikkal ñu ci tomb boobu muy alqasr wal jamaa fi salaati muy wàññi ak boole ci julli bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi amaat mbégte ci dajeeg sunuy mbokki daara sunuy mbokki taalibe fii ci keppaaru eh, jumaay Tuuba ci ganaleeg daairatu muqaddimatul xidma eh, ndax depuis 2016 eh, ba ñu ma fi woowee ci waxtaan booba ba tey at mu jot ñu yeesalaat seenu kóolute ci woolu ma waat ma mën a bokk ci programme bu am solo bii ñuy taxawal fii ci jumaa yi Sëriñ Tuubaa ji kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci yeesal gi ñuy sax di yeesal kóolute googu saa su ne eh, di eh, nuyu it ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bachir di ko ñaanal yàlla mu may ko gudd fan lool ak wér ba naal yi mu naal ci liggéeyal lislaam ci liggéeyal yoon wi lépp rek yàlla mottalee ko lépp ñor xomm ci kanamam yàlla na ko suñ borom def bi juudihi wa bi karamihi wa bi manni gannaaw loolu ñu ngi am mbégte ci dajawaat ak yéen ci tomb xam-xam bu amee solo nii te muy tomb boo xam nii al oustaz eh, Cheikh Mouhamad Fadil Bousso wax na ko dafa bokk ci ponki lislaam te mooy julli tem nag soloom dafay aju saa su ne ca ajuwaayam tem bu la gën a jege ponki lislaam ya tem booboo la gën a am solo te tem bi ñu war a traité mu jëm ci wàllu wàññi julli ak boole ay julli dafa aju ci benn ci ponki lislaam yi nga xam ni mënees na ne mooy keno ba gën a dëgër ci kenoy lislaam yi ginnaaw kalimatu shahaadatayn te mooy julli eh, eh, lii nag tey du doon muhaadara waaye ab dars la eh, jataay la bu doon jataayub fiq mel ni rekk jataayub ab xët wu ñu war a jàngale wala bunt wu ñu war a jàng jàngale ko gaaral ko ci laxdar yi wala ci ashma yi wala ci muqaddimatul izziya ba ci risaala kon amaana usluubu jooxe gi mën na wuute tuuti ak usluubu euh, na ñu daan jooxe ci conférence yi euh, masala la moo xam ni euh, dafa am solo lool ndax ku ci nekk dalay gaar nekk ci sa dëkkuwaay jóge fa tukki dem feneen te comme lislaam diine la joo xam ni ak léppam ci jàppandal la aju moo tax sunu boroom it xàllal ay jaamam yoonu jàppandal ci saa soo xamee ni tukki nañu ndaxam am sax julli ñeenti ràkka du jël temps du jël temps ci ku ko ku mottal rukkoo yaag sujjóot yaag ponk yépp taxut mu jël temps waaye teewul sunu yërmande boroom ak bëgg lu jàppandi saa su ne ci ay jaamam tax na euh, julli li diire bi di gàtt gàtt boo tukkee mu am lu mu la ci wàññil loola baaxuk sunu boroom la donte sax nag motal ga xaraj mënoon na caa bañ a am euh, dars bi nag comme ni ñu ko waxee euh, dinañ ko wutal as muqaddima tawti agoo xam ni bëgg ci leeral manhaj bi ñu jaar pour mën a gaaral dars bi euh, ndax wumpalewu leen ni dëkk bi walla réew mi walla lu bare bare bari ci Afrique ci mazhabu imaam Malik la tënku euh, damay faral di wax sax ni jàpp ni lislaam mas naa xam jenn la Sénégal mas naa xam jenn lislaam judut lislaam du fi ànd ak mazhab imam Malik jàpp ma ni Sénégal xam na jeneen lislaam leneen lu fi dugg gannaaw gi la waaye Sénégal ba muy xam lislaam ak mazhabu Malik la ko xamee woon comme ni mu ko xamee woon ak ak tasawuful junaydi comme ni mu ko xame woon ak euh, al aqida al loola laa jàpp moom laa gëm ba keroog may gis lu koy dindi mazhab Malik nag comme ni ngeen ko xame benn la ci al arbaa benn la it ci mazhab yi nga xam ni ñoo gën a wér ci madahibu ahli sunna wal jamaa loolu taxoon na imaam Malik dayo bi ko sunu boroom joxoon ci xam-xam taxoon na Madina kenn musuta gis benn boroom xam-xam boo xam ni nit ñi laxase nañu ci continent yépp wuti ko di sàkku ji ci moom xam-xam comme ni ñu ko seetloo ci jamonoy imam Malik loola di firndeel la yonent bi waxoon yushiku an yadriba annaasu akbaadal ibil yaltamisuuna al ilma falaa yajiduuna alama min aalimi al madina nit ñi danañu mas a takk di takk laxas di wuti xam-xam waaye nag du ñu fekk fenn benn boroom xam-xam bu gën a xam boroom xam-xamu madina ba te koo koy imaam Maalik boroom xam-xam yi firndeel nañ ko waaye it xaalu jamono booba ba tey firndeel na ko ndax la laxas fekki ko musuta laxas fekki kenn ci lu ko jiitoog lu ko mujj ba tey eh, moom nag dafa bari woon ay taalibe te yàlla mayoon ko mu gudd fan ndax al aymatul arbaa moo ci ëpp ay fan ndax dund na juróom ñett fukki ak juróom benn moom rekk a ko ci am tax na jàngal na nit jàngal baayam jàngal ma eh, jàngal na nit jàngal doomam jàngal sëtam ndax gudd na fan te yàgg jàngale taalibe yi daan ñëw ci moom jàng ba jeexal ñibbi ñeneen ñëw jàng ba jeexal ñibbi te xam nañu ni ab mujtahid saa su ne ijtihaadam dafay soppiku yenn saay mu am lu mu gis ne lii wér jamono di dox di dox ba mu gis lu ko gën a wér jamono bu ne nag ku ñëw ci moom jàng si la nga fekk ni moom la jàpp ci jamono yooyu teg ko ci ay dalil loola ngay jànge ci moom looloo indi ay wuute am ci biir madhabu Malik ni ki mu amee ci yeneen madahib yi waaye ci madhab Malik da caa yaatu lool boo demee ci xaliil danga ca fekk lu bare bare bari ci ay du taraddudun ay ta'wilaan ak ta'wilaat lépp it tegu ci xam-xam boo xam ni lenn ci taalibay imaam Malik ñoo ko jële woon ci moom moo tax dars bi tey ñu bëggoon delluwaat ci usul yooya téere yooya nga xam ni ñoo jëmmal xam-xami imaam Malik te duñ ko génne benn yoon lu ñu ci toll it incha allah ñu taxaw ci wane la nga xam ni moom moo ca gën a lëng te lëngal ga ñu tënk ko ci ñett nit te ñett ñooñu mooy xalil ibnu isxaq al jundi ak cheikh ahmad dirdir ak cheikh muhammadul amir ndax ñett ñii wàllu woowa ñoo ca gën a tarkiis ci seenu njàngale xalil comme ni mu ko waxe woon ci njëlbeenu muxtasaram ba ne mu bayinan lima bihi al fatwa yaani lil mu'tamad li anna al fatwa yakunu bil mu'tamad li nga xam ne mooy mu'tamad nee na ci lay sukkandiku lañuy ñuy ubbee te mooy la gën a siiw la gën a wér euh, la gën a lëng nee na loola lay sukkandiku ci téereem bii donte nag ay boroom xam-xam yu ñëw ci ginnaawam jàng téereem dellu ci ay sukkandikuwaayam waayam moom am na ay dabaatal yu ñu dabu mu'tamadaati xalil yooyu ba wane ni kii kat fii dafa ne lii mooy al waaye nag mu'tamad leneen la du lii ku mel ni diir diir ci aqrabul masaalik looloo ko taxoon a jóg ngir dellu dabu xalil indiwaat masalay xalil ya siyaaxawaat ko ci uslubu boppam ba pare la xalil indi woon xayrul mu'tamad mu remplacer ko al la mu indi woon taawilaat taraddudaat bu fekkee ni taxaw na ci as moom dir diir mu remplacé ko looloo taxoon mu bind aqrabul masalik comme ni mu ko waxee ci njëlbeenu téere ba boo demee muhammadul amir it noonu la def ci al majmuu ak ci char charxul majmuu di at tahrir ak ci xaashiya ba di daw u shumuu fi charxil fi xaashiyati charxil majmuu kon tënku nañu ci téere yooyu waaye deewulit ñu nañu dinañu dellu ci ña nga xam ni ñooy ña daan dellu ci ñoom ku demee ni laxami ku demee ni ibnu yunus waaye ku demee ni ibnu rushdi ak ku demee ni mazari ak ñoñ ak ñameel noonu danañu dellu ci ñoom ba pare jëmmal li nga xam ni mooy ar ci mazhab bi ci anam ngoo xam ni amaana euh, dina leeral euh, lu bare bare bari kon wàllu xasru salaati muy wàññi julli eh, amul sikki sàkk ni lu sharia yoonal la lu lu ñu sañ a def la ndax suñ boroom subhaanahu wa taala moo ci joxe woon ndigal wa ida darabtum fi l ardi fa laysa aleykum junaaxun an taqsuru min alsalaati in xiftum an yaftinakum alladina kafaru yàlla nee na bu ngeen takkee ab tukki bu ngeen di tukki nekk ca biir tukki ba ca yoonu tukki ba yàlla nee na aayul ci yéen ngeen wàññi julli ngeen wàññi ci julli gi bu fekkee ni dangeen ragal yéefar yi fitnaal leen ndax booba ak dabu daba dabanteeg dàqante bu rëy moo amoon ci diggante jullit ñeeg yéefar ñi booba ak noonoo rëy kon loolu asl la goo xam ni ci la masalay wàññi julli soqi ko bu ngeen tukkee aayul ci yéen mooy ni sañ ngeen a wàññi ci julli ya ngeen daan julli waaye da ko tënkoon cib chart mooy ni bu fekkee ni dangeen ragal yéefar yi fitnaal leen xadiisu ibnu abbaas it asl la ci masalay wàññi julli te mooy li ibnu abbaas di wax ni farada allahu jalla wa ala salaata ala lisaani nabiyikum fi lxadari arbaan wa fi safari rakaatayni wa fil xawfi rakaatan ibnu abbas nee na yàlla farataal na julli ci làmmeñu seen yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni daa nekk fil xadari daa nekk cib dëkkam di aji teew farataal na julli ci moom ñeenti ràkka ci julli yañ war di julli ñeenti ràkka bu fekkee ni ci tukki la julli ya ñu daan julli ñeenti ràkka nee na yàlla daf ko farataal ci ni nañu koy julli ñaari ràkka bu fekkee ni ci jamonoy xawfu la ñu cay julli benn ràkka loola it dafa am ci anamu xawfu goo xam ni am na riwaaya yu ñëw ci julli benn ràkka ci xawf ndax xawf am na juróom benn façon yi jullin gu ñu koy jullee yu bokkut juróom benn fa façon yi jullin bokk na ci façon ngi jullit yooyu julli benn ràkka donte sax mazhabu Malik jëlul julli benn ràkka googa waaye rek pour jàng pour mottali xadiis bi na mu rotee Ya'la ibn Umayya it nee na mason na wax Umar ibnul Xattaab ne ko wàññi gi ngeen di wàññi julli fekk mu nekkoon ak tukki booba Omar mooy xalifa mu nekkoon ak Omar ibnul Xattaab ci aw tukki Omar di wàññi julli moom ba mu jàngee laaya ja moom yàlla Ya'la ibn Umayya mu gis ni kat yàlla kat ba muy autorisé di joxe ndigal ci ni manees naa wàññi julli da koo tënkoon ci bu bu fekkee ni yoon wi neexul da ngeen ragal dafa am fitna su nekk ci kaw yoon wi bu boobaa man ngeen wàññi julli noonu la dégge woon moo tax mu ne Omar yàlla kat dafa wax ni fa laysa aleykum junaaxun an taqsuru min alsalaati in xiftum an yaftinakum alladina kafaru faqat amina naasu léegi nag ragalatuñu dara ndax gox bi aljaziratul arabiya ñun ñoo fi man léegi ñoo fi moom ragalatuñu dara kon julli gi wàññi julli gi lu tax ñu koy def ba mu waxee loolu omar ibnul xataab omar da ko tontu ne ko eh, ajibtu mimma ujibta minhu fa saaltu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama fa qaala sadaqatun tasaddaqa allahu biha alaykum faqbalu sadaqata mu ne ko lii la jaaxal nii day ca na dégg aaya ba man it nii la ma jaaxale woon ginnaaw bi yàlla defee jasiratul arabiya lislaam not fa ci jamono yonent bi waba yonent baa nga fa teewul mu daa wàññi julli lii la ci jaaxal moo ma ci jaaxaloon ba ma laaj ko moom yonent bi waaye la ma yonent bi tontu mooy ni sarax la su leen yàlla sarax ak woyofal la woon booba waaye gannaaw ba am nu ñëwee ba sécurité ñëwee ak sarax la gu leen yàlla sarax te bu ngeen saraxee yàlla bu ngeen saraxee ngir yàlla da ngeen di bëgg mu nangu ko kon yéen it nangul leen yàlla saraxam gii mu leen sarax mu ne loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa tontu woon eh, xadisu Aïcha it ñëw mu ciy wax ni furidati salaatu rakaatayni rakaatayni fi lxadari wa safar fa uqirat salaatu safari wa ziida fi salaati lxadar Aïcha nee na ba yàlla di farataal julli da koo farataaloon ñaari ràkka ñaari ràkka ci njëlbeen ga lislaam wàcce ba julli wàcce ñaari ràkka ñaari ràkka yaa xam kuy tukki la wala ku ne ca këram la ñaari ràkka ñaari la woon jamono dox nag ba yàlla yokk julli aji teew def ko ñeent julli aji tukki mu wàcc ko ca ñaar ya nga xam ni moo ca doonoon cosaan lii xadiisu Aïcha la bu wér la isnaadan waaye ibnu abdul moom nee na xadis bi da koo jaaxal mu ne xadis bi jaaxal na ko lool ba jàppul ni xadis bu sax la ca Aysa ndax taarix wonewul benn yoon ne daan nañu julli ñaari ràkk ba at sàngam la yokk julli mu jóge ci ñaari ràkk dem ci ñeenti ràkk nee na islaam wonewu ko benn yoon moo tax ibnu abdul bar ci tamhid ak ci listiskaar ma zaala yashukku fi hada al da ci sikki sàkk saa su ne nee na xadas bu rëyee noonu bu rëyee noonu bu amoon danañ ko bind am na bis sàngam dat sàngam ba ñuy tax taxawil xibla bi dat beeg lépp xam nañ ko yu bari ci nawaasix naasix wal mansuux yu ci baree baree bari date nañ ko xam nañu jan jamono la mu ne waaye xadis bii donte nag ala sinaati alxadisiya ci wàllu càmbar xadis isnaadan ba xam wér na wala wérut wér na waaye jaaxal na ko lool jàppul ne xadis bi daal am na cosaan ala kulli xaal euh, waaye lii mooy aslu ci wàllu wàññi julli beneen biit it ibnu abdul teg na ko ci ne bu fekkoon ni cosaan la mooy ñaari ràkka kon du waxee ni wàññi ndax bu ñu nee wàññi rek da ngaa jóge ci la gën a bari wàcc ci suuf te yàlla dafa ne ngeen wàññi julli kon ñeent mooy cosaan wàññi gi mooy li nga xam ne dafa juux fekk si ñeent yi ñu may ko ci ko ñu may ko koo xam ni dafa nekk ci tukki euh, alqaadi abdul wahaab bokk ci magi madhab bi nga xam ni bokk na ci ñi séyale diggante madaarisi madhabi malik bonkal mu rëy la ci madhabu malik boo xam ne néew na ci ay moroom liggéey ci liggéey yu rëy ndax booba madaarisi madhab malik dañu amoon ku ci nekk am loo jagoo ci wàllum njàng ci téere ya nga daan sukkandikoo ñii di sukkandikoo al mudawana ñii di sukkandikoo al otabi ñii di sukkandikoo ci al mawaziya ñii di sukkandikoo ci al waadiha ñii di sukkandikoo ci al majmua bu ibnu abdus ku ci nekk awoon téere waaye moom moo fexe ba dajale téere yooya yépp ci ay taalifam qaadi abdul wahab al baghdadi ku yàgg la nag ndax 422 la faatu du nitu tey ëpp na junniyaat bi mu faatoog léegi moom nee na bokk na ci ay dalil yi wane nii julli mënees na ko wàññi xadiisu anas gi mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha taala wadaa chatra salaati aw nisfa salaati wa sawma an almusaafiri wa an almurdici aw alxubla summa qaala wala xilaafa fi dalik wa naqalahu bnu almundir fi alijmaa wa annawawi fi almajmuc alqaadi abdulwahaab nee na bokk na ci liy tegtale ne julli sañees na ko wàññi mooy ni xadiisu anas bii wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla day wàññil na leen genn wàllu julli wàññil na leen it wàññil na it teggi na it ak woor ci aji tukki comme ni mu ko teggee ci kuy nàmpal walla ku ëmb mu teg ci moom alqaadi abdul wahab ne wuute amul ci yii mu wax nii ne aji tukki ji sañ naa wàññi julli waaye sañ naa bañ a woor waaye it kuy nàmpal ak jigéen ju ëmb sañ naa bañ a woor lii mu wax ni it ibnu munzir toxal na ko ne ijma da caa am waaye it nawawi wax na ci majmu ne it boroom xam-xam yépp dëppoo nañu ci ni wàññi julli lu ñu sañ a def la bu ñu jógee ci tomb boobu ñaareelu tomb bi mooy assalawaatul maqsuura julli yi nga xam ni sañees na leen a wàññi julli yi ñu saña wàññi weesuwul julli yi nga xam ni ñeenti ràkk la ndax wàññi timis dee su ko wàññi ndax ñetti ràkk la boo ko wàññee dafay tóol te timis mooy witru bëccëg gi mooy witaru bëccëg gi bu ñu ko wàññi woon day doon chafa bu ñu ko wàññi woon rek mu doon ñaari ràkka bu boobaa bëccëg gi du am witr te yonent bi sallallahu alayhi la mu waxoon ci wàññi julli ak na mu daan wàññee julli musuta jéggi ñetti julli yooyu di tisbaar ak tàkkusaan ak gee nee na kon loolu mooy wane ni julli ya saña sañ wàññi mooy ñetti julli yooyu kon sharia saxu ci benn yoon ne suba dañ koy wàññi walla timis dañ koy wàññi julli yañu ñu sañ wàññi mooy tisbaar ak tàkkusaan ak gee te danga koy jële ci ñeenti ràkk yóbbu ko ci ñaari ràkk la eh, wàññin gi lañu cay wàññi bu fekkee ni julli la gu mel ni tisbaar ak tàkkusaan na nga ko daa jullee nga koy jullee booy wàññi mooy da koy yelu waaye ñaari ràkk yu jëkk yi rekk ngay julli gu ci ne faatiha ngay jàng akub saar bu fekkee ni julli gee la nag nanga ko daan jullee ci biiral ko nga koy biral ñaari ràkka yi jàng ci faatiha akub saar julli ak wàññi it nañu koy jooxee wuutewul ak nañuy jooxee julli gu mat rukkoo yee tolloo sujjóot yee tolloo gu ci nekk yaa ngi koy ubbee takbiratul ihram jàng faatiha akub saar rukkoo siggi kon nañuy jullee ci julli gu mat noona la ñuy julle it ci bu ñuy wàññi julli lu dut ni ñaari ràkk yu mujj yi doo ko julli boo jullee ñaari ràkka def sa tashahud da ngay sëlmal euh, lii wane loolu mooy ne Omar ibnul Xataab wax na ni saafartu ma annabi sallallahu alayhi wa sallama wa abi bakrin wa umara wa usmaana fa kaanu yusalluuna alzuhra wal asra rakatayn rakatayn kon wàññi E, ñaari ràkka ñaari ràkka rek la kon julli yooya mooy julli yi ñu sañ a wàññi amma xukmu qasri salaa at tey wàññi julli lañu cay tënk mooy waxi ibnu shaas ibnu shaas najmu ibnu shaas moom it bokk ci ponkali madhab bi nga xam ni e, ci delluwaayu xalil la bokk ci muxtasar waaye ci ay delluwaayam la bokk yit ci at tawdiix mu bind téere bu am solo bu tudd iqdul jawaahiri thamina fi madhabi aalimi almadina moom mooy ki nose madhabu Malik ba façon bi ñuy binde tey tartib bi Najm ibnu Shaas mi moo ko def ndax mazhab Malik seeni téere lam takun murattaba qabla ibnu Shaas lépp daan jaxasoo boo gisee bu ñu la waxee mu dawwana ñu ne la al mu dawwana wal muxtalita muxtalita ay masaayil yu jaxasoo la boo demee ci ibnu rushdi ca al wa tahsil bu lay wax dafa naan wa fi rasmi kada maanaam ñëw na ci euh, titre sàngam mu dalay wax masalam julli ne la ñëw na ci titre sàngam nga xam ni ci buyoo lay wax masala mii di wax ci wàllu julli ba tey bayaan wa taxsil noonu la mel kon téere téere mazhab bi kenn tartiibu ko woon dafa doonoon muxtalit masailuha muxtalitun baaduha bi njëkk a def mooy najm ci iqdul jawahiri ba mu koy def defit dafa jël téere bu Ghazali di alwajiz ndax imaam Ghazali moom it na mu mel ci mazhab shafii ci téere yi mazhab shafii yépp ba tey تدور حول كتاب الوجيز للغزالي ndax Muzani moo njëkk a ixtisaar al umm li Shafii imaamul xaramayni ñëw sharxa muxtasarul Muzani euh, ci téere bi mu tudd nihaayatul matlab fi diraayatil mazhab fanweeri mujallad ak juróom benn Ghazali ñëw ixtisaar téere bi tudde ko al basit fil mazhab jëlaat albasit ixtisaaraat ko tudde ko alwasit fil mazhab jëlaat wasit ixtisaaraat ko nose ko ci anam goo xam ni nose téere gënu ko tudde ko alwajiz wajiz booba nag mbooleem ku ñëw ci ginnaawam ci mazhab shafii ci tënkinu wajiz ngay ci wajiz ngay liggéey imma ixtisaar ko wala sharx ko téere shafii yépp ci wajiz lañu ñu tënku léegi najm ibnu shaas bi mu ñëwee dafa gis ni wajiz bii kat nose bii bu mazhab malik amoon nose bu mel nii ci la jël mas masailu mazhab malik yëpp nose ko ala tartibil wajiz lil Ghazali kon ku am solo la xalil ak yëpp seen tartib tartib wajiz la lil Ghazali ndax ibnu Shaas la ñu roy ci tartibam te ibnu Shaas Ghazali la roy ci tartibam ci alwajiz kon ibnu Shaas it mu doon téere bu am am solo nga xam ni am nañu ne sax moom la ibnu Xaajib ixtisaar xalil ixtisaar ibnu Xaajib moom ibnu Shaas nee na waqad ixtalafat aqwaalu ahli lmadhabi wa riwaayaatuhum fi xukmi alqasri ala xamsati aqwaal génnul mazhab bi comme ni ñu ko waxee woon du ñu génn mazhab bi insha allah waaye ibnu Shaas tënk na wax yi am ci mazhab bi ci àttey xasru àttey wàññi julli nee na juróomi wax ci am bi ci jëkk mooy innahu waajib nee wàññi julli ci ku tukki am na ay boroom xam-xamu mazhabu Malik yu ne wàññi julli waajib la wàññi julli farata la ibnu Shaas nee na loola day ñu ngi ko jële ci solo nañ ko ci ashab taalibeb Malik la bu jànge ci moom mubasharatan mu ne wàññi julli farata la alqaadi Ismaayil nga xam ni mooy jiite madrasatu Malik ca Baghdad ca Iraq moom it nee na wàññi julli ci aji tukki farata la ibnu suxnuun suxnuun menn mi ñu xam doom ja moom it min fuqahaa il madhab al mutaqaddimin it nee na wàññi julli ci aji tukki farata la moom nii la ibnu Saas tëggee waaye nag ibnu Rushdi nag daa ñëw ne ibnu Saas nii mu waxe fii du nii ashab waxul lii mu wax dafa ne ashab waxu ko dafa am kuñ naan abu bakr ibnul jaham bokk ci boroom xam-xami mazhab bi moom moo juum ci ashab moo juum ci ashab moo tax ibnu rushdi aljadd nee na wa abu bakr ibnu aljaham huwa alladi qaala inna rawa dalik qaala wala yujadu li malik fi lmadhab wala li ahadin min ashaabihi alqawlu bilwujub nee na ibnu jah abu bakr ibnu aljaham moo ko askane ashab nee waaye malik waxu ko te kenn it waxu ko ci mazhab bi ne wàññi julli farata mu ne Malik la ashhab wax ni moom la Malik wax mooy ni inna fardal musaafiri rakaataan xam nga ñaar yooyu daa wute xasru salaati farida ak fardul musaafiri rakaataan kon ibnul jahm lool la dégg jàpp ni ashhab dafa toxale ci Malik ne wàññi julli faratala la ibnu rushdi moo ko tasxiix neena na lii la ashab wax ne Malik dafa ne faratay aji tukki mooy ñaari ràkk waaye waxul ni ku tukki farata la ci yow nga julli ñaari ràkk waloo julli ñeenti ràkka euh, yi tamit teg ci ni wa ila wujubihi maala Muhammad ibnul Mawaz ci ñi bind juróomi téere yi ëpp solo ci mazhab bi la bokk muy almawaziya euh, mazari mi xalil di tudd wa bil qawli lil maazari moom wax na ci charxu talxiin ne ibnul mawaasid ca loola la xaw jeng jëm ca mooy ni alxasru fi lil musaafiri waajib alqaadi abdul wahaab it wax na ni lu baree bari ci mazhabu ci waa baxdaad ci maalikiye yi dëkke baxdaad yi féete baxdaad ne nañu it wàññi julli ci aji tukki farata la ndax lan ndax seen sëriñ ka indi mazhab Malik ca Baghdad muy Ismail al Qaadi moom loola la daan wax kon loolu mooy wax ju jëkk ji ci biir mazhab bi ci at tey wàññi julli ci aji tukki ñaareelu wax ja mooy innahu sunnatun muakkada am nañu ne wàññi julli sunna su feddaliku la boo demee ci dasuuqi ci xaashiya ala dirdir ala muxtasar xalil ba mu indee wax ji daf ca teg ni wa huwa raajix nee lii mooy li wér mooy li lëng fil madhabil ne wàññi julli du farata waaye sunna la su feddaliku alqaadi iyaad moom it teg ci ni huwa almashhuuru min madhabi malik wa aktharu ashaabihi wa aktharu alulamaai min alsalafi walxalaf nee na nekkub wàññi jullit di sunna su feddaliku qaadi iyaat nee na mi ngi koy waxe ci at tanbihaatu lmustambata ala masaili almudawanati walmuxtalita moom qaadi iyaat nee na wàññi julli la ca wér ci madhab malik gën ca siiw mooy ni sunna su feddaliku la nee na loolooy li siiw ci mazhab bi loola moom la la ëpp ci taalibey maalik yi wax la ëpp ci ulamaa u salafi wal xalafit loola la wax ibnu arafa it nee na loolu mooy li wér ibnu abdil barri it nee na loola mooy li wér mooy ni du farata waaye sunna su feddaliku la alqaadi abdul wahab wax ni bokk na ci lii wane ni wàññi julli du farata sunna su feddaliku la mooy yàlla dafa ne fa laysa aleykum junaahun an taqsuru min alsalaa aayul ci yéen ngeen wàññi julli te nee na wa hadihi ibaaratul mubaaxi duna al fard nee na loo xam ni mu baax la loola la ñuy wax ni laysa aleykum junaaxun kon loolay wane ni rek du farata bokk na ci it ci liy wane ni sunna la du farata waxi anas ibnu malik jamu wax ni kunna nusaafiru ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fa minna almuqassir wa minna almutim falaa yaciibu baaduna ala albaad anas nee na daan nañu ànd ak yonent bi di tukki ñii di wàññi seen julli ñii di motal seen julli te kenn du ayibal moroom kon loolay day wane ni bu doon farata kenn du saña wàññi ci bu fekkee ni yaa ngi tukki surtout ñi ànd ak yonent bi xadis boobu it doon xadis bu wér ba tey euh, xaadi abdulwahab teg na ci ni wali anna asxaabana xad ajaazu lil musaafiri an yusallu xalfa almuqiim wa yutimma alsalaa fa law kaana farduhu alqasru lama jaaza lahu litmaam nee na lii wane it ni sunna la du farata nee na sunu gaañi te mooy maalikiya yi ñoom ñépp dëppoo nañu ci ni dagan na ci aji tukki mu julli ci gannaawu ku sax dimatal mu ànd ak moom motal julleem topp ca gannaawam nee na bu fekkoon ni farata la mu wàññi julli bu boobaa du dagan ci moom mu julli ci kenn koo xam ni da mu julli ci gannaawu koo xam ni day motal julleem nee bu boobaa loolu du dagan ba tey ñëw na ci al irshaad bu ibnu askar moom it min al kutubi al mu'tamada ladal malikiya ñëw na it ci alkaafi bu ibnu abdil bar ñëw na it ci ar bu ibnu abi zeyd al nee na alxasru fi safari sunnatun muakkada ñoom ñépp wax nañ loolu wa annahu almashhuru min al fi rubaaiya li wér doon al ci mazhabu malik mooy ni wàññi julli ci ajit tukki sunna su feddaliku la du farata waaye it woyoful du mustahab it yem ci ba tey Ibn di teg ci ni bokk na ci lii wane ni sunna la mooy xadiisu Omar jamu waxoon ni yonent bi moo ko waxoon ne ko sadaqatun tasaddaqa allahu biha aleykum faqbalu sadaqatahu sarax la su leen yàlla sarax nangu leen sarax ja te mu ne ku ñu sarax du farata ci yow nga nangu sarax sa nit mën naa ñëw sarax la nga ne ko baax na comme ku ñu sarax du force nga jël lañu la sarax kon du fors ci ku tukki mu julli eh, mu wàññi julli ga nee na loola day wane ni kon sunna su feddaliku la waaye it du farata eh, ba tey boo demee ci riwaayaatu muwatta riwaayat abu musaabu zuhri moom wax na ni wa qasru salaati ala madhabi malik wa jamici ashaabihi sunnatun min assunani alaxdu biha fadila wa tarkuha xayru xatia abu musab zuhri loolu la te taalibe Malik la bokk na ci ñi solo ci moom muwatta ba muwatta am sax mool nañ ko muwatta abi musab zuhri mooy muwatta sax bi gën a yaatu ci wattaay yi moom nee na wàññi julli ci bu Malik ak mbooleem ay taalibeem sunna la su bokk ci sunna yi ku ko jàpp ku ko def def nga lu baax waaye ku wàññiwul julli defoo lu ñaaw defoo lu ñaaw ñàkk wàññi du ñaaw bu doon farata kon day doon ñaaw kon loola mooy ñaareelu wax ji ci mazhabu malik ñetteelu wax ji mooy huwa mustahab am na boroom xam-xam ñoo dañ koo sopp loola dasuuxi toxal na ko ci xaasiyaam ala asharhil kabir li dir diir boo demee ci Muhammad Ali ci minahul jalil indi na wax jooju boo demee ci ibnu juzay alxirnaati it indi na ko ci alqawaaninul fiqhiya nee na wax jooja it ka ko wax mooy al abhari abu bakr al abhari moom it dafa bokk ci malikiyatul baghdad di sëriñub alqaadi abdul wahab abhari moom nee na mustahab la du sunna mu akkada te moom it ci ponki madhab bi la bokk ci ponkali madhab bi la bokk abu xataab ruayni toxale na ko ci moom it ci mawaahibul jalil al amir muhammadul amir it indi na wax jooju ci al ikliil fi sharxi muxtasari xalil bokkul ak jawahirul ikliil jawahirul ikliil muhammad abdul sami saalih abdul sami al abi al azhari moo ko bind waaye al ikliil boobu muhammadul amir moo ko bind kon loolooy ñetteelu wax ji lañu seetlu mooy kenn lañu gis ci mazhabu malik ku ko wax te mooy al qaadi abu bakar al abhari ñeenteelu wax ja mooy wàññi julli mu baax la daadagan dagan rek amul ngeneel lu ca ne matal ak wàññi ñooyam ci aji tukki ngeneel amu ca wax jooja it dasuuqi indi na ko eh, ci xaashiya ba mu def ala asharhil kabir li diir diir ala muxtasar xalil boo demee ci ibnu jusey moom it indi na wax jooju eh, ci alqawaninul fiqhiya xattaab it indi na ko toxal ko ci mawaahibul jalil Euh, abul walidil baaji wax na ko it ci almuntaqa waaye wax ji li ci xaw a teey xel tuuti mooy ni askanewuñ ko kenn baaji ba mu koy indi rek dafa ne an baadi ashaabi malik ci lenn ci taalibey malik ya waaye waxul kan la ci taalibeem ya moo tax wax ji bokk na ci wax yi ca gën a daif ci wàllu àttey wàññi julli juróomeelu wax ja te mooy wax ju mujj ja ci àttey wàññi julli mooy ñi wax ci boroom xam yi ne ruxsa ak woyofal la rekk akuk yaatal loola it ibnu jusey indina ko ndax dafa wax ni ixtalafa alladina ra'awhu ruxsatan wa tawsiatan fi l afdali min dalik fa minhum man ra'a alqasra afdal wa minhum man ra'a alitmaama afdal wa minhum man xayara bayna al min geyri an yufadila axadahuma ala saaxibi ibnu jusey nee boroom xam-xam yi gis ni ci bu Maalik ñi gis ni aw ku woyofal la rek akuk yaatalu ko ku jàppandal ñoom ci seen bopp wuute nañu waaye ci li gën ndax wàññi gaa gën wala matal julli gaa gën mu ne am na ci ñoom ñu gis ni wàññi gaa gën am ci ñoom ñu gis ni motal a gën am ci ñoom ñu ne loo def baax na ci ñaar yooyu kon lii lépp ci biir bu Maalik la waaye waxoon nañ leen ni ñaareelu wax ja mooy wax ja ca gën a wér mooy wax ja lëng mooy wax ja mashhuur te mooy ni sunna la euh, mu akkada ba tey ci wàllu àttey wàññi julli daf ci am ay masala yu bari yoo xam ni dañuy fàqe ci masala yi àttey wàññi julli bari na lool waaye danañ ci tànn ñeenti masala mu doon masala yoo xam ni ñoo ëpp li muy gaar nit euh, te ñuy aju ci attey wàññi julli bi ci jëkk mooy ni ida atamma almusaafiru salaat fa yunvar ida aftataha salaata bi niyati litmaami mutaammidan aw jaahilan aw naasiyan aada fi lwaqt wa ama in ahrama bi niyati alqasri summa atamma aamidan fa qawlaan boroom xam-xam yi wute nañu ci wàll woowu ci àttey aji tukki ji nga xam ni euh, dafa matal julli ñu ne dañuy xool bu fekkee ni ba muy tàmbali julli ga dafa yéene woon motal julli ga waaye yéene ga moo tey ci yéeney motal julli ga walla mu réere at tey motal julli ci aji tukki wala mu fàtte attey motal julli ci aji tukki nee na boroom xam-xam yi ñu bari ci mazhab bi nee nañ dafay baamuwaat julleem waaye bu fekkee ni dafa ihraam xarmal julli te ba mu koy def la mu ci yéene mooy wàññi waaye gannaaw gi mu ne ah naa continuer rek mottali julli nga def ko ñeenti ràkka boroom xam-xamu maalikee yi wuute nañ ci la qawlayn benn bi mooy ne yuiidu fi l waqti wa baada al mooy ne xatman comme ba muy dugg ci julli ga wàññi la yéene woon dem ba ci biir mu def ko mu mottali ñeenti rakka am na ñu ne dafay baa mu waat julli ga bu dee waxtu julli ga génnul wala sax waxtu julli génn na xat man dafay wàññi dafa dafay baa mu waat julli ga am na ñu wax loolu ci mazhab Malik am na ñu ne déedéet yuiidu fil waqti dafay baa waat julli ga rek ci biir waxtu wi bu waxtu wa weesoo laa yuiidul assalaa te laxdar yi waxoon nañu wa kullu iaadatin fi lwaqti fa hiya mustahaba aw sunna baamu bu ñu la waxee ni lii da koy baamu ci waxtu wi rek mooy kon lañ lay def loo du farata ci yow ñeene nañ day baamu fil waqti wa xaarijal waqt baadal waqt am nañu ne dafay baamu fil waqti faqat kon loolu day wane ni baamuwaat ga muy baamu julli ga du farata ci moom waaye dañ koo sopp rek ci moom bu fekkee ni nag dafa xarmal dugg ci julli gi yéene wàññi waaye mu juum motal julli ga bu boobaa boroom xam-xam maalike yi wax nañ ci ñetti wax benn bi mooy yasjudu baada salaami li sahwi wa tujziuhu salaatu dafay sujjóot baada salaam waaye julli ga doy na ko bu fekkee ni am nañu ne àtteem mooy innahu yuiidu fi lwaqti wa baadahu li kasrati sahwi dafay baamuwaat julli ga ci biir waxtu wi ak bu waxtu wi jeexee ndax la mu juum dafa bari ndax ku war a julli ñaar julli ñeent ñaar ya nga ca teg bari na kon laa budda an salaata fi lwaqti wa xaarij al waqt am nañu ne innahu yuidu fi lwaqti kon lii mooy yi ñu wax ci masala moomu ñaareel bi ida salla muqiimun xalfa musaafir koo xam ni muqiim la julli ci ginnaawuk aji tukki boo demee ci qaadi abdul wahaab ak ibnu juzay wax nañu ni almuqiimu ida qtadaa bil musaafiri atamma almuqiimu baada salaami almusaafir yow muqiim nga boo jullee ci ginnaawu koo xam ni musaafir la aji tukki la bu sëlmalee yow dangay ngay jóg mottali sa julli lam nga xam ni moo la faatoon moo la dese woon ca julli ga danga koy mottali waaye teewul eh, boo demee ci diir diir ci aqrabul masaalik mu ngi lay wax ni wa kuri haqtidaau musa muqiimin bi musaafir nee na ànd ak loola yépp sib nañu ab muqiim koo xam ni mi ngi sax mi ngi ci dëkkuwaayam di julli ci ginnaawu koo xam ni dafay julli julli aju tukki waaye bu fekkee ni nag julli nga ci ginnaawam bu boobaa jógal nga mottali sa julli ñetteelu masala mooy ida salla musaafirun xalfa muqiimin fa arbaatu aqwaal bu fekkee ni kii ab musaafir la dafay julli ci ginnaaw muqiim boroom xam-xam yi wax nañ ci ñeenti wax alqaadi abdul wax na yépp ci talkiin nee na wax bu njëkk ja mooy salaatuhu jaa'izatun fil wajhayni nee na julleem dana dagan ci ñaari anam yépp ñaareel ba mooy salaatuhu fasudat fasadat fil wajhayni ñaari anam yépp julleem ga yàqu na almusaafir ida salla xalfa muqim kon loola mooy ñeenti wax yañu ca wax ba ca jëkk mooy julli ga baax na ak nu mu ko mën a defee am nañu ne julli ga yàqu na ak nu mu ko mën a defe dafa war a baamuwaat waaye ñetteelu wax ja it mooy ni in vannahu fa alfaahu muqiiman jaazat salaatu bu fekkee ni da nga jortu woon ni aji tukki la nga doon aji tukki julli ca gannaawam fekk ni moom du aji tukki bu boobaa sa julli googu wér na baax na bu fekkee ni ba ngay julli ci ginnaawam danga jàppoon ni xamoon nga ni kii muqiim la nga jàppoon ni muqiim la aji sax la ci dëkkuwaayam waaye ci biir julli gi nga ge seete ni nga xame ni ndeketeb musaafir la ah, bu boobaa julli ga dafay yàqu da ngay baamuwaat sa julli am na ñoo xam ne nee nañu aks bi julli ga du yàqu ñeenteelu masala mooy ida salla musaafirun xalfa musaafir aji tukki guy wàññi bu jullee ci ginnaawu aji tukki buy wàññi qaadi abdul wahab wax na ci talxiin ni ida qtadaa bimusaafirin mislihi fa atamma al imaamu salaata fala yatba'uhu li muxaalafatihi sunna nee bu fekkee ni aji tukki la guy julli ci gannaaw aji tukki mu war a ñu sopp ci moom sunnaal ci moom mu wàññi moom imaam bi imaam bi dal di julli ñeenti rakka nee na yow mii di aj tukki ni moom di julli ci ginnaawam bul ànd ak moom bu dee mottali na julleem nee na bu ko topp ndax dafa wuuteeg na bu boobaa yow aji tukki ji di julli ci ginnaawu aji tukki gu continuer di motal julleem ñaari choix nga am bi ci jëkk an yantadira al imaama li yusallima maa aw yusallima huwa munfaridan wa yaxruju min alsalaa nee na bu boobaa bu defee tashahudam bu njëkk bay jóg yow da ngay toog xaar ko bu mottalee julleem bay sëlmal nga sëlmal ànd ak moom bu la neexee it nga dagg julli nga génn ci julli ga sëlmal dem sa yoon boo demee ci ibnu rushd ci almuqaddimaat almumahidaat mu ngi cay wax ni ida salla almusaafiru bi musaafirina rakatayn summa qaama li itmaami salaa faqad ixtulifa fii ma yasnau alqawmu xalfahu ala thalathati aqwaal aji mottali aji tukki di julli ci gannaaw aji tukki mu julli ñaari ràkka jóg bëgg a continuer nee na it ñetti wax a ci am gëj a jëkk yusallimuuna li anfusihim wa yansarifuun ku nekk day sëlmalal sa bopp dem am na ñu ne yuqaddimuuna man yusallimu bihim dañuy jiital ci seen biir ñoom maamum ya ku leen di kuy sëlmal ñu sëlmal topp ko am na ñu ne yantaziruuna xatta yutimma salaa fa yusallimuuna bi salaame dañuy xaar ba mu mottali bu sëlmalee ñu sëlmal am na ñu ne yattabiuunahu wa yuiduuna salaa am nañu ne dañuy topp ànd ak moom julli bu ñu noppee baa mu waat julli ga fil waqti loola kon ay ñeenti masala la yoo xam ni tatafarrau an xukmi al qasri wa al ci julli ñu dem ci ñetteel bi mooy shuruutul qasri sharti ak wàññi boroom xam-xami madhabu Malik nee nañu wàññi dafa am juróom benn charte charte ba ca jëkk mooy tuulu safar tukki ba na doon tukki bu yàgg tukki bu gudd bopp na doon tukki boo xam ni tukki bu gudd la tukki bu gàtt dee ca wàññi julli Ibn Rushd na boroom xam-xam yi wuute nañu ci distance ci dayo boo xam ni mënees na ci wàññee julli wala sañees na ci wàññi julli wuute nañ ci lu bari lool waaye nag nee na madhabu Malik moom la mu wax Malik saxal na ko ci almuwatta te loola mooy Malik nee na annahu balagahu an abdillah ibni abbas kaana yaqsuru salaata fi misli ma makkata wa taif nee na abdullah ibnu abbas daan na wàññi julli bu masaa tukki diggante bu toll ni distance bu toll ni màkk ak taayif te Makka ak Taïf boo duggee ci GPS dana la wax ni 92 kilomètres la diggante Makka ak Taïf juróom-ñeent fukki kilomètres la ak ñaar nee na Ibnu Abbas daan na wàññi ci diggante booba kon loolu mënees na cee jële benn nok benn benn xam-xam ci point boo xam ni as diggante soo xam ni sañees na ci wàññi julli 92 kilomètres kon sañees na cee wàññi julli te buggu la wax ni ci diggante boobu rek la ñuy wàññi julli waaye daf la bëgg a wan ni sañees naa wàññi julli ci 92 kilomètres ndax ibnu abbas da ci daan wàññi julli mu waxati ba tey wa fi misli ma na makkata wa usfaan nee na saxe na it ni ibnu abbas daan na wàññi julli ci diggante bu tolloog màkka usfaan boo duggee ci gps bi laaj ko diggante màkka ak usfaan dana la indil 75 kilomètres juróom-ñaar fukki kilomètres ak juróom loolu la muy tekkiit ba tey mooy diggante la boo xam ne sañees na cee wàññi julli ndax ibnu abbas daan na wàññi julli ci diggante bu toll noonu mu dellu waxati ni wa fi mislima bay na makkata wa jidda nee na ibnu abbas na wàññi julli ci diggante bu toll ni màkka ak jidda te boo xoolee màkka ak jidda 82 kilomètres la kon yii jëlewuñu ci luy xadd ba bopp ni diggante bu toll nii rek la war a wàññi julli waaye la mu la bëgg xamal mooy diggante bu toll nii sañees na cee wàññi julli ndax ibnu abbas da ci daan wàññi julli moo tax maalik teg ci ni li yépp waxi maalik la maalik teg ci ni wa dalika arbaatu burut mooy tolloog ñeenti barit wa dalika ahabu ma tuqsaru ilayya fihi salaa li ma gën a sopp ci diggante boo xam ni ku ko tukki mën nga caa wàññi julli nee na mooy diggante yu toll nii kon masaafatul qasri distance wàññi julli bi nga xam ni moom lañu ñu limité ci madhabu Malik fukki farsax la ak juróom benn te fukki farsax ak juróom benn mooy ñeenti barit comme ni ko diir diir waxe ni wal baridu arbaatu faraasix wal farsaxu salaasatu amyaal wa masaafatu alqasri sittata achara farsaxan samaaniyatun wa arbauna miilan wa huwa almashhur kon diggante bu toll nii di 48 euh, mille donte 1000 sax nag am nay wuute bu ca am entre 1800 mètres 1600 mètres 1500 1200 mètres waaye boo demee ci GPS euh, bi it la ñu tànn nga xam ne aalamiyan moom la ñuy doxe tey ci nattuwaayu àddina bi tey 1600 mètres la junni ak juróom-benn téeméeri mètres donte ci mazhab bi bu yàgg am nañu wax lu yées loola même junni ak ñaar téeméeri mètres am nañu wax it lu ko ëpp tuuti loolu yëpp am na waaye almuhim euh, taqrib yi ala wajhi taqrib diggante soixante-quinze kilomètres ba quatre ba jëm kaw diggante la boo xam ne sañees na cee wàññi julli Cheikh Ahmad Dirdiir ca aqrabul masalik nee na la wa huwa al mashhur euh, alqaadi ba tey mi ngi lay wax ni lu yées loolu lu tolloog benn farsax te farsax mooy ñetti mil à peu près juróomi kilomètre jàpp juróom benn kilomètre alqaadi abdul wahab nee na lu tollu noonu la mashaqata fiihi fa huwa kat tawaafi fi sikkakil madinati nee na lu toll noonu amut jafe-jafe amut xat-xat gu ne dafa mel ni nga nekk ci benn dëkk ndax da nga nekk ci benn dëkk boo xam ni dëkk bi ci boppam am na lu ëpp juróom benn kilomètre ci biir dëkk bi da nga ko ci dox Touba rek am na ci diggante yoo xam ne jege na ñaar fukki kilomètre bu ko ëppee waaye feeg yaa ngi ci biir Touba munoo wàññi julli kon nee na diggante boo xam ne yaa ngi ci biiru dëkk donte dëkk ba sax dafa mot téeméeri kilomètre génnuloo dëkk ba bu boobaa yaa ngi ci biir dëkk bi sañuloo wàññi julli ak waa boo mën a dem ci biir dëkk ba eh, boo demee ci dasu dasuqiit mi ngi lay wax ni ci xaashiyaam fala yaqsuru ahadun xatta takuna masaafatuhu thamaniyatan wa arbaina miilan fa saaidan fi safarin waaxid nee na kenn sañ ta wàññi julli lu dut distance bu toll nii ñeen fukki miil ak juróom-ñett fukki miil ak juróom te loola mooy toll taqriban 75 jàpp 82 kilomètres diggante boobu mooy ñeent fukki miil ak juróom-ñett nee na nag wala lu ko ëpp ci wenn tukki nag na doon tukki boo xam ni benn wenn yoon wi la boo jógeween fii ne naa dem ngaabu jóge ngaabu sa xel ne naa Euh, continuer dem ba daarul xafoor sa xel ne ah naa continuer dem njaareem di randu donte da ngaa def junni kilomètre waaye comme jóg gu jëkk ga amut benn distance boo xam ni ba ngay jóg yéene ngaa dox lu toll ci euh, euh, quarante-huit mille wala quatre soixante-quinze kilomètres alal aqal kon ku jóge woon fii di dem bëgg ko def ay étape ne naa dem daarul mu'ti fa fa nga moo la tax a jóg nga dem daaru yoonu Louga fekk la fa wala ngay randu di randu di randu kilomètres ya lu mu bari bari bari doo wàññi julli maa daama amu ci randu goo xam ni fa ngay jógee fa nga jëm motul distance bii ñu wax mooy distance su ñeent fukki miil ak juróom-ñett moo tax mu ne fii safarin waaxit ci benn tukki waaye tukki bu randatu tukki boo xam ne ay étape ay étape la bu boobaa te nga jub te jubluwoo woon fa gën a sori bu boobaa. doo wàññi julli amma bu fekkee ni yaa ngi dem dakaar waaye am yéene ni da ngay jaar njaareem boo jógee njaareem am loo fay dox jóge fa jaar Bambey bu boobaa mën nga di wàññi ndax jubluwaay ca cosaan mooy Dakar nga jublu waaye bu fekkee ni njaareem a la tax a jóg bu boobaa doo mën a wàññi julli nga dem njaareem yoonu Bambey fekk la fa dem Bambey far yoonu xombal fekk la fa dem xombal yoonu Cees fekk la fa ngay randu ba yegg Dakar boobaa amul diggante benn boo xam ne sañ nga caa wàññi julli moo tax mu ne fii safarin waaxid noona it la ko ibnu abdul barr waxe eh, kon ba tey eh, li aju ci distance boobu boroom xam-xami madhab bi wax nañu ci ibnu rushd nee na fa in qassara fi ma duna thamaniyati wal arbaina miilan fala iaada fala iaadata alayhi fi ma baynahu wa bayna al arbaina miilan fa in qassara ma duna al fa xawlaani Ibn Rushd nee na lu jëkk loola sax dafa indi wuute bi am ci miil miil nan lay toll ñaata ziraa la ngir sóoraale wuute boobu tax na mu wax ni bu fekkee ni comme la gën a bari ci li ñu wax ni arbaat burut noonu lay toll mooy ñeent fukki miil ak juróom ñett la gën a bari ca lañ ca wax am na ñu wax la ko lu ko yées mooy fanweeri miil ak juróom benn donte la gën a wér mooy ñeent fukki miil ak juróom ñett ca la wàññee julli waaye nag ngir sooraale ñi nga xam ni dañ ne fanweeri miil ak juróom benn manees na caa wàññi julli moo tax Ibn Rushd wax la ni ku julli ci lu yées fanweeri miil euh, ñeent fukki miil ak juróom ñett bu boobaa amu doo baamuwaat julli ga muraatan lil xilaaf al madhabi boobaa doo wàññi julli ga doo doo baamuwaat julli ga waaye nag bu yéesee fanweeri miil ak juróom benn bu boobaa wàññi baamuwaat julli ga iaada julli ga dalay war bu boobaa ibnu abdul bar nag nee na gannaaw ba mu lëngalee moom la nga xam ni mooy ñeent fukki miil ak juróom-ñett daf caa teg ni wa laysa li musaafirin an yutimma salaa fi misli hadihi almasaafa fa in faala faqad asaa inda malikin wa jamaatihi min ahli almadina wa yuciidu inda malik fi lwaqti istihbaaban nee na lu yées 48 mille yi ku ci tukki wàññi ci julli kenn waru cee wàññi julli waaye ku ci tukki far wàññi ci julli def nga lu ñaaw ci ma ca maalik fa maalik ca gisinu maalik mook waa këram mook mbooloo ñi nekk ci mazhabam Maalik gis na ni dangay ngay baamuwaat julli googa ci waxtu yi waaye am na ci ay taalibeem yu ne jaruta baamu ci waxtu yi loola it wax la waaye la gën a wér mooy wax ju jëkk ja mooy dangay baamu ndax loola mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga nga xam ni mosu koo bàyyi ci ay tukkeem loola tukki jéeri la distance boobu mooy distance bi gën a lëng ci bu madhab Maalik wax ci ni ku ko tukki war ngaa wàññi julli sañ ngaa wàññi julli waaye bu fekkee ni tukkib géej la yoon wa ngay tukki ci yoonu géej nga jaar boo demee ci ibnu askar ci al irshad mi ngi wax ni tukkib géej distance bi yow yawmun wa la na doon tukki boo xam ni fa ngay déparé ak fa nga jëm dina dina dina dina diire dina da nga ci def guddi ak bëccëg moom mu gis ni tukki guddi tukkib géej deesu ca indi distance su ay kilomètres ak i mil waaye distance su jamono lañ koy indil te mooy yow yawmun wa layla waaye Ibnu Rushdi waxati ne waaye masala mii am na ak teqale gu ci am mu ne koo xam ne da tukki waaye nag ci tefes gi ngay topp di tukki tefesu géej gi ngay topp rek sa yoon tukki bi yépp yaa ngi ànd ak tefes gi di dem nee na tukki googoog tukki jéeri jee yem ñeenti barit yi il faut Euh, sóoraale ko ci nga xam ni mooy distance bi nga sañ a wàññi julli euh, diir diir it wax jooja la féddali Cheikh Ahmad Saawi ci bulxatu saalikin nee na loola mooy li wér xirash it ci sharhu xalil nee na loola it mooy li wér waaye bu fekkee ni tukki ga ci biir géej ga ca gaal nga nekk wala bato di tukki ca biir géej ga nee na bu boobaa distance su ay mille kenn du ko seet kenn du ko kenn du ko gendeekooti foofu waaye distance su jamono la ñuy xool te bu boobaa mooy yawmun wa layla inda aksari almalikiya kon kuy tukki bu dee tukkib jéeri la distance ngay xool waaye bu dee tukki biir géej gi la bu boobaa jamono yi heure ya nga xam ni moom ngay tukki heure yooya ngay xool loola kon mooy charte bu njëkk ba mooy distance bi nga war a tukki war naa mot euh, arbaata burut te mooy ñeen fukki miil ak juróom-ñett charte bu ñaareel ba mooy al azmu fi safari ala qat'i al masafati min geyri taraddud mooy nga dogoo tukki distance bii nga xam ni mooy 48 mille yi moo la tax a jóg fii nga jóge dakaar nga bëgg a jëm fii Touba nga jóge Kaolack nga bëgg a jëm moo la tax a jóg kon dogu goog ngay dogu ci traverse distance bii charte la ci distance bu toll ci 48 mille te dogu ga ca ba ngay jeqi di tukki dogu ga foofa nga koy dogoo bu mu doon dogu koo xam ni daf laa bett ci yoon wi moo tax alqaadi abdul wahab di wax ci almauna wa man azama ala safari baridayni fa lamma wasala ilayhima azama tamaama al arbaati al burud lam yuqsur lam yuqassir li lam yaxsul lahu azmun ala al xaddi alladi yuqsaru fihi salaam nee na képp koo xam ne da dogu ne fii ma jëm kat Euh, ñaari barit lay toll ñaari barit lu toll ci ñeent fukki kilomètres laay dem loola nga décidé ba nga yeggee ci ñeent fukki kilomètres ya sa xel dem ci ni naa continuer ba yeneen ñeent fukki kilomètres am lu ma fay doxi dem ba njaareem sa xel ne ci ni naa ba xombal bu boobaa nee na ba ngay jóg ca njëlbeenug jóg ga la nga yéene woon a distance ba nga yéene woon a dem distance ba motul ñeen fukki bu motul ñeenti burut motul ñeen fukki kilomètre ñeen fukki mil ak juróom-ñett bu boobaa doo wàññi julli ga waaye nee na boo mujjee dem nag ba yegg xombal booy wàññeeku comme distance bi mat na sëkk léegi di ñëwaat Touba bu boobaa sañ ngaa wàññi da nga am soxla dem njaareem yegg njaareem soxla fekk la fa nga wéy dem xombal bu boobaa doo wàññi ndax ba ngay jóg Touba njaareema la tax a jóg waaye ba nga yeggee xombal dox soxla sa di ñibbisi bëgg a jubal si ñibbisi Touba directement bu boobaa mën ngaa wàññi julli ndax diggante bi nga war a traversé mot na eh, masaafa boo xam ni mënees na caa wàññi julli kon ñaareelu charte bi mooy nga dogu décider ca ba ngay jóg ne diggante bi nga war a dem kat mot na eh, ñeent fukki miil ak juróom-ñett ñetteelu charte ba mooy an yaqsuda jihatan yana booy dem fa nga jëm nga xam ko ne man kat fa fële laay wuti dëkk sàngam laa jëm bu fekkee ne danga ngaa gëlëm di dem te xamoo foo jëm bu boobaa ne nañ doo wàññi julli comme ni koy mujj say waxee bu fekkee ni dafa am sa fas wu réer wala say nag wala say jur yu réer nga jóg di leen toppi xamoo foo leen di fekki bu boobaa it doo wàññi julli donte mujj ngaa doxe tuubaa ba Louga Touba ba Ndar Touba ba Rosso ak distance boobu la muy mat fatu safar yépp waaye yow wër sa jure la tax a jóg mën ngaa génn tuubaa rek fekk ko fii ci Mesere xamoo foo koy fekk comme da ngay wëri loo xam ni xamoo foo koy fekk bu boobaa nee nañ doo wàññi julli la budda nga jóg di dem foo xam ni xam nga ni fii ma jëm kat fay xasru distance wu wàññi julli mu ngi fi te mooy ñeent fukki miil ak juróom-ñett yu ñu waxoon eh, boo demee ci alkishnaawi yi ci ashalul madaarik mi ngi waxati ni ida xaraja li xaajatihi wa lam yadri bi maxalliha ala alyaqin taaratan yajiduha an qarib wa oxra an baid fala yuqassiru salaa nee na koo xam ne da am looy wuti li ngay wuti xamoo fan nga koy fekk wóoru la waaye yaa ngi dox rek dëkk boo dem wàcc laaj fii nangam da laay wër wala nangam laay wut ba xam am ngeen ko wala sama nangama réer nee na kooku it du wàññi julli ndax mën nga ko fekk fu jege waaye naka noonu mën nga koo fekk fu la sori nee na misaalam ah, kuy wutim ñax ngir say jur kooka du wàññi ndax mën nga koo amee fu jege mën nga koo amee fu fu sori naka noonu ku am jur wu la réer it noonu ku am jaam boo xam ni daf laa rëcc nga koy wëri ku sa doom réer wala sab taalibe réer nga dugg ci dëkk yi di ko wërit kooka yi ñooy ñépp kenn du ca wàññi julli loola mooy ñetteelu sart ba ñeenteel ba an na safaru mu baaxan tukki bii ngay tukki na doon tukki bu dagan tukki bu xaraam deesu ca wàññi julli it tukki bu xaraam deesu ca wàññi julli kon falaa yuqassiru falaa yaqsiru lqaasi bi safarin ka qaatici tariq wal abdi lbaaqi xilaafan li abi xanifa boo demee ci tawdiix ci xalil mi ngi lay wax ni koo xam ni dafay tukki te fekk tukkib mooy yàlla la tukki boo xam ni tukkib mooy yàlla la danga nga wu dem di jëli moomul wala déplacé wu dem di defi loo xam ni yàlla tere na ko wala dem di dajeeg nit foo xam ni yàlla tere na ko tukki mooy daal ku koy tukki bu boobaa bu boobaa tukki booba sañoo caa wàññi julli kon loola mooy ñeenteelu sartu ki sañ a wàññi julli koo xam ni nag da tukki tukki bu dagan bu boobaa sañ ngaa wàññi julli wala tukki boo xam ni tukki bu ñu sopp la juróomeelu sart bi mooy booy tukki balaa ngay tàmbali lu dëkk bi rëy rëy rëy sañoo tàmbalee wàññi julli te fekk ne jeexaloo dëkk ba nga jóge da war a jeexal dëkk ba nga jóge traversé ko ba dëkk bi jeex takk kon ku doon jóge tuubaa di tukki di dem Dakar ci misaal dem ba boori daaru saw sañoo goo wàññi julli dem ba ci station yooye ca yoon ba EDK baak yu mel noonu sañoo wàññi julli il faut nga jeexal dëkk bi takk ba nga xam ne amul dara lool làngateel ak dëkk ba dara ci dëkk ba féetewu la ndeyjoor dara ci dëkk ba féetewu la càmmoñ wàcc nga dëkk bi lépp ca sa gannaaw bu boobaa julli bu la fekkee foofa sañ ngaa tàmbalee wàññi julli kon loolu mooy juróomeelu charte bi euh, juróom benneel ba euh, mooy ca biir tukki ba bul dem ba ci biir tukki ba nga décider dogoo sax lu ëpp ñeenti fan walla lu mat ñeenti fan kon bu fekkee da ngaa tukki ca bis bu njëkk ba ba ngay dem nga dogg woon ni ñeenti fan laay def delsiwaat wala lu yées ñeenti fan laay def delsiwaat nga dem ca bis bu njëkk ba nga décider ni danga def lu ko ëpp bu boobaa dootoo wàññeeti julli kon ci gàttal lii moo doonoon sarti wàññi julli sarti ki sañ a wàññi mu desoon ay bunt yu yu yu yaatu ci wàll woowu waaye dafa mel ni waxtu wi dafa gën a jege Euh, ñu dugg ci buntu boole ay julli kon ki sañ a boole it boole julli it dafa am ay chart mooy sabab yi tax nga mën a boole ay julli ak it yan julli lañu mën a boole tisbaar ak tàkkusaan sañees na koo boole timis ak gée sañees na koo boole waaye tàkkusaan ak timis sañeesu koo boole gée ak suba sañees su koo boole subaak tisbaar sañee su ko boole du ni ñaari julli yu toppante rek sañees na leen a boole déedéet tisbaar ak tàkkusaan lees sañ a boole ak timis ak gee sañees na koo boole kon loolu mooy julli yi ñu sañ a boole dalil ya ca ñëw it bari na eh, sabab ya tax ñu mën a boole ay julli it juróomi sabab la bi ci jëkk mooy aljamu bi arafata wa musdalifa booy nekk taxawaayu arafa ak eh, jamono ya ngay fanaan ca musdalifa foofa sañees foofa sañees na fa sunna la sax nga boole diggante tisbaar ak tàkkusaan ca arafa diggante timis ak gée nga boole ko fii ci eh, ca musdalifa loola mooy sabab su jëkk ca ñaareelu sabab sax mooy aji tukki booy tukki dagan na nga boole ñaari julli tisbaar ak tàkkusaan wala timis ak gée boole ko ci bu fekkee ni charte la charte ba nag mooy bu fekkee ni da ngaa yàkkamti bu fekkee ne yaa ngi dox di dem waaye boo xasee yegg doo ko wàññ doo doo doo booleete ay julli waaye diggante ba nga jóge di dem xasabal mazhabil maliki diggante boobu feeg yeggoo sañ nga di di boole ay julli tisbaar ak tàkkusaan di boole timis ak gee kon tukki bokk na ci li nga xam ni sañees na caa wàññi julli du charte tukki ba it ci boole julli du charte mu am masaafatul xasri bu dee wàññi julli masaafa fay ñeent fukki miil ak juróom-ñett moo cay charte ci distance waaye bu dee boole ay julli mesere gi boo fa demoon sañ ngaa boole ñaari julli bu ca chart lu dul ci mazhabu shafii ñoom ne nañu ñeent fukki miil yooyu ak juróom-ñett charte la ci waaye mazhab malik du ca chart kon tukki lu mu gàtt-gàtt mën nga caa wàññi julli mën nga caa boole ay julli ba lu mu gàtt-gàtt mën nga caa boole ay julli Eh, loola mooy ñaareelu sabab mooy tukki ñetteelu sabab sa mooy taw taw bu bari lool doon taw guddi diggante tàkkusaan muy taw wala timis jege muy taw bu boobaa it boole julli sañees na ko bu dee madhab am na yeneen madhab yu koo xam ne nee na deesul boole julli mutlaqan ko madhab abu xanifa waaye madhab malik moom nee na manees naa boole ngir taw sañees naa boole diggante timis ak gee waaye taw sañee su caa boole diggante tisbaar ak tàkkusaan taw munta doon sababuk boole diggante tisbaar ak tàkkusaan waaye dana doon sababuk boole diggante timis ak gee nee nañ ndax guddi gi li tax ñu woyofal mën a boole diggante timis ak gee ci buy taw ndax bu nit ñu jógee jàkka ja kër ga la ñuy dellu dem dallu ji waaye bu dee bëccëg bu ñu boolee it ku nekk day delluwaat ci yitteem rek donte mi ngi taw kon loolu doonul illa bu kenn mën a boole ay julli bu dee Shaafi'i moom nee na ah kay même tisbaar ak tàkkusaan mënees na caa boole ay julli bu fekkee ni dafay taw ah bu fekkee ni nag dafay taw lu jiitu timis ngeen yéene boole julli taw ngeen tàmbalee julli taw ba daldi sewet xirash yi nee na ci sarxu xaliil ida sharau fi salaati almaghribi li wujudi sababi aljamci wa huwa almatar fa lamma sallawha aw bacdaha irtafaca sabab fa innahu yajuusu lahum altamaadi ala aljamci id laa tu'manu awdatu almatari nee na ngeen julli di julli timis taw bi sebet nee na bu boobaa eh, man ngeen a continuer julli gee teg ca ndax amaana mu tawaat dewet taw bi mën naa sebet tawaat kon bu boobaa continuer leen ngeen julli seen jamoo boo demee ci diir diir ci aqrabul masaak nee idan qataa almataru baada shuruuci walaw fi l ula fa yajuusu ljamoo wa zaahiruhu walaw lam yuqad rakaatun amma qabla shuruuc fala yajuus bu fekkee dugg ngeen ci rakka bu njëkk bi ci julli gu njëkk gi taw ba sebet nee na bu leen neexee continuer leen bu julli googa motee ngeen julli julli gee boole julli ga waaye bu fekkee ni dangeen di waaj a julli timis mu doon taw ngeen fas yéenee boole ñaari julli ya timis ak gee far taw ba sewet bu boobaa du ngeen boolee te julli leen timis te dellu kër ga bu gee jotee ngeen ñëwaat julli ñeenteelu sabab si mooy almataru wa tiinu wa zulma taw ak potopoto mooy ban ak ak lëndëm ndax yooya it sabab la ci mën a boole ay julli ibnu jusey wax na la ni ida jtamaca almataru wattiinu aw infarada almataru jaaza aljamu wa ida infarada tiinu fa qawlaan nee na bu fekkee ni taw la bu ànd ak poto poto bu ànd ak ban bu bari wala mu doon taw kese bu boobaa sañees naa boole ñaari julli ya bittifaaq waaye bu fekkee ni tawul waaye yoonu jàkka ja moo bari poto poto ndax sañees naa boole ñaari julli ya dem ñëwaat demaat day metti nee na boroom xam-xam yi nee na ñaari wax a ci am alqaadi abdulwahab nee na aljamcu jaaisun ma inqitaaci almatari wa baqaa'i tiini wa zulma nee na boole julli ga dana dagan donte taw ba sawet na waaye bu fekkee ni yoon waa ngi am potopoto ba tey te lëndëm bu boobaa mënees naa boole ba tey bu boobaa mënees naa boole ba tey ndax nee na al li ann almashaqata allati li ajliha jumia baynahuma xaala almatar baaqiyatun ma inqitaacihi nee na ndax xat la taxoon xat-xat ak jafe-jafe ya taxoon ñu daganal la ko nga boole ci jamono ya muy taw xat-xat yooyoo ngi existé ba tey bu boobaa mën ngeen boole ba tey eh, loolu mooy ñeenteelu sabab sa kon juróomeelu sabab sa mooy ki nga xam ni dafa tawat aji tawat moom it tawat ga mën naa tax mu wàññi julli bu fekkee ni ragal na ni mën na ko crise bu julliwul ñaareelu julli ga ci njëlbeenu julli gu jëkk ga ca kanam kuy tawat di crise ci yenn waxtu yi julli tisbaar jot bu boobaa mën naa boole ñaari julli yi ngir ragal mu crise balaa tàkkusaan di jot euh, wala bu fekkee ni boole julli gaa gën a woyof ci moom mu boole ko bu boobaa it loola dagan na bu boobaa lañu gën a taamu ci moom nag mooy bu fekk mu def ko ci waxtu wu njëkk wa bu fekkee ni waxtu woowoo gën a woyof ci moom am nañu ne déedéet na ko def ci waxtu wu mujj ci mujj waxtu wu jëkk wa ñaareelu julli ga mu def ko ci ñaare ci njëlbeenu waxtu wu mujj wa te loole la xanafi yi di tudde aljamu suuri boo xoolee ci ci ci melo ak boole la waaye ci xaqiiqa julli gu nekk danga nga koo julli ci waxtoom gu jëkk ga danga ngaa xaar mujj gu waxtu wa nga julli ko ca gu mujj ga da ngaa xaar njëlbeenu waxtoom nga julli ko ca eh, bu fekkee ni nag boole ay julli la te fekk amuloo ngant la ëpp ci boroom xam-xami madhab bi nee nañu daganut te loolu mooy almashhur mooy arraajih kenn lañ xam ci mazhab Maalik ku ne dagan na te mooy ashhab ku moom ña ca des ñépp dëppoo nañu ni ku amul ngant du taw du benn ngànt sañuloo boole ñaari julli te fekk na nekkuloo ci aw tukki ki nga xam ni nag dafay julli te bëgg a boole kañ lay yéene boole ga yépp ci boroom xam-xam yi madhab bi nee nañu ca julli gu jëkk ga nga yéenee boo noppee nga julli jullig ñaareel ga kon ca julli gu jëkk ga nga yéene boole ga waaye boo ko yéenewul ci julli ga njëkk ga taxul julli ga yàqu boo demee ci nafra wi ci sharhu risaala mi ngi lay wax ni mahallu niyati ala raajih inda salaati al ula wa tutlabu min al imaami wal ma'muum waa amma niyatul imaamati fal mashhuru annaha fihima nafra yi wax na ci alfawakihu dawaani ci sarxu risaala nee na barabu yéene ga nee na ci julli gu jëkk ga lay amee imaam dafay yéene jamu ga waaye ma'mum bi it yéene jamu ga mu des euh, ñaari masala yu gàtt benn bi mooy kii def li'tikaaf ci jumaa kooka jaaduwul amul sañ-sañu boole julli donte daa doon imaam ba yow miy def li'tikaaf ci jàkka ji donte dafa am loo xam ni yuujibu aljam taw bi bari na waaye yow ci jàkka ji nga nekk di def li'tikaaf bu boobaa ña ñëw fekk la si jàkka ji donte yaay imaam sañoo loon sañoo leen jiite ngir ñu boole julli googu kenn ngay jiital ci ñoom nga mën a topp ci gannaaw waaye yow doo leen jiite ndax yow sa sunna du du jamu bu boobaa yow ci jàkk ji nga dugg nga nga nga dëkk ci jamono ya ngay def itikaaf kon sañuloo boole ñaari julli beneen bi mooy koo xam ni dafa nekk ci biir këram wala nekk ci jàkka ja nekk ci jàkkay këram jàkka ja nekk ci sa biir kër sañoo faa boole julli bu dee jàkka ja ca dëkk ca biir dëkk ba nag foofa lañuy ñuy boolee julli ki nga xam ni yow rek yaa nekk ci sa kër ci sa biir néeg wala sa biir kër sañoo boole ay julli it comme ni ñu ko waxee madhab Malik ñoom ñëpp dañoo dëppoo ca loola ñay boole julli comme ni ko xalil waxee mooy ni julli gu jëkk ga la ñuy nodd lañuy noddal ca biti comme nañ daan nodde waaye ñaareelu julli ga ca biir jàkka ja lañ koy nodde ñu ne nañ ci bi la taxaw nodd ñu ne nañ fii saxnil masjid ci digg jàkka ja la ñuy taxaw nodd kon ci tënk yi moo doonoon yenn masaayil yi nga xam ni dajalewoon nañ ko ci darsu tey ngir man ko gaaral eh, mu doon lu yaatu ci eh, na ko mazhab bi tëggee wuute yi bari ci lool waaw waaye toujours rek ñuy jéem di tënku ci li nga xam ni mooy ar raajih fil madhab loolu day firndeel rek li benn boroom xam-xam waxoon ne dafa bokk ci li madhab te ki ko wax du ab maliki ibnu taymiya moo ko wax ci téeréem bi mu tudde sixatu madhabi ahlil madina nee na wérug mazhab waa madina mooy mazhab malik mi ngi ciy wax ni li tax mazhab malik gën a wér te moom du maliki mazahib yépp nee na bokk na ci mooy ni masala wuute lu mu bari bari bari mazhabu Malik di nga ca fekk wax joo xam ni même yow ci sa mazhab boo jàppee ni looloo gën a wér da nga fekk lu mel noonu ci biir mazhabu Malik kon la wér lépp daa dajaloo ci biir mazhabu Malik mi ngi koy wax ci cëram kon baax na jërë ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi fiikum euh, jërëjëf baarakallahu fiikum am na solo lool jërëjëf euh, waxtaan wi am na solo tomb bi wala ba bind bi leer na te jàpp naa ne ñi ko doon teewlu it bàyyi nañ ci xel xam naa kon foofu nga jeexale ci am solo mazhab bi rek xëy na moo tax boroom béréb bu tedd bi soññee lool ci ñi ko topp te yaakaar ko ñu ngoy ci ngir Maalik ndax ne na fa innaha mutahara munawwara eh, laab na te te leer na li ñu ci indi doy na sëkk xam naa kon ñu fàttali rek ne docteur sëñ Abdou Lahad moo doon waxtaan tey doon joxe bind ci xasru salaa wal jam uh, ci ci alqasr wal jamaa fi salaa maanaam wàññi ak boole ci julli dañuy tudd rek xëy na anawin yi wala kii lu gàtt rek mooy wax wax wax na ci yan julli ñooy julli yi nga xam ne sañees na ko wàññi indi na ko indi na it atteb wàññi ci julli lan mooy atteem defe naa bi ci bi mu ci gën a lëngal mooy bi nga xam ne dafa xam ne sunna mu akkada euh, te loolu mooy li lu bari cox la ma bi wax comme ni mu ko leerale naka noonu indi na sart yi nga xam ne mooy sart yi tax nga mën a wàññi boo nekkee boo boo maanaam ci ci ci julli nga nga mën a wàññi julli indi na it yan julli la ñuy wàññi loolu it yaakaar naa leer na wane na ne kon julli gi nga xam ne ñeenti rakkaa la moom la ñuy wàññi waaye julli gu nekkul ñeenti rakkaa kenn du ko wàññi euh, wax na it kañ la nit ki di arrêté wàññi julli su fekkee may nañ ko ko lu wax lu am solo ci biir waxtaan bi waxi sallallahu alayhi wax ne bi bi muy tontu Seydina Omar ne ko sarax la boo xam ne yàllaa ko saraxe saraxee dañuy fàttali ko Cheikh Mourtala ndeysaan góor yàlla ku fonkoon sunna la rawatina sunna yu mel noonu boo ko masaan di wax ci ci wàññi ak yokk day wax ne ginnaaw waaw moom ginnaaw saraxu bi yàlla la boo xam ne da ko sarax ab jaamam da ko war a jël te loolu kon day daal dëppoo ak xadis bi sallallahu alayhi wasallam wax ñëw na itam ci bi mu jógee ci alxasr fi sola ñëw na ci aljamaa benn salaatayni al mustarikatayni fil waqt maanaam ñaari julli yu bokk waxtu lañ leen di sañ a boole loolu mooy li mujjee xëy na waxtu wee xat lool sax ba xaw ko jat waaye kon dana gën a dugg sax ci xeeti xeeti jamono yooyu ndax léegi bi muy jeexal tudd na benn forme ci ci ci forme yooyu muy dégg al jamono suuri waaye am na jamono taqdim ak jamono taxir yooyu yëpp bu waxtu bi maye woon yaatu woon dana dana dana ci ñëw ci lu gën a yaatu kon oustaz docteur ñu ngi lay sant baax di gërëm xam naa rek xëy na bi kalima wajiza nuraxibu bi al ustazayn al karimayn min al azhar al sharif insha allah nuraxibu bikuma fi rihaabi hada almasjid aljaami almubaarak wa insha allah natamanna lakum insha allah ramadan mubarakan insha allah iqama tayiba wa taqabbal allah minna wa minkum insha allah bismi daayira bi hada tarxib yaani bismi daayirati muqaddimat alxidma ya bi riasat alcheikh alimam sëñ Afiya Buso insha allah barakallah fikuma wa insha allah shakara lakuma saayikuma insha allah kon ñu ngi sant ñëpp di fàttali rek ne Euh, suba ak jàmm incha allah waxtaan wi fi war a am mi ngi aju ci al iddatu anwaaun wa ahkaam maanaam idda ay xeet la ak ay atte mbokk mu ñu wax Souleymane moo koy def xam nañ ne si Cheikh Namba ak Abdoul moo moo waroon def bu dee maanaam bu su suba bi waaye dafa am ngànt dafa am ngànt da koo dab loolu moo tax sëñ Souleymane moo koy wut ci loolu di sant nag mboolem euh, rajo yeeg ak site internet yi nga xam ne ñoo jàpp ci ci liggéey bi ba ba mën a jàll ci biti bu ñu tuddee rek MK TV muy maanaam mu xadimatu mu xadimatu xidma TV dina yóbbaale mboolem seen yi ak xëy na canal yi waaye di fàttali it ne képp koo xam ne bëgg ngaa yónnee laaj ci fatawaa yi ñu fiy def mën nga ko jaarale ci numéro bi 78 689 28 28 78 689 28 28 wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا